ngeen jëf seetu Sénégal TFM mbokk yi ba léegi rek ñu ngi àndandoo ak yéen euh, en direct minuit 59 mooy doog jot ñu leen di ziar te di leen ñaanal guddi gu neex euh, ci euh, télévision Futur Média bu fekkee yéen a ngi ñuy doog a jot nag tey ñuy waxtaanee Sidi Hadj dalal gan gu mag di Serigne Ahmed Sarr xam naa ni Sénégal yëpp bég nañu ci góor gi ñuy waxtaanee ci jotaay bile ñu ngi xaar seen i réaction d'ailleurs yéen ngi réagir moo xam ak plateforme Orange bi ba ci sunu ay hashtag ci quartier général Facebook. Facebook Twitter Instagram ba ci Snapchat bi nga xam ni mooy tax euh, ngeen mën a suivre coulisses euh, yu euh, quartier général Aïssatou Paye Fall tey nee nga da ñuy présenter livre boo xam ni ñu ngi ko bind ci maam Abdou Aziz Sy Dabakh. waaw Pape il est où ton micro <laughs> mon micro voilà euh, Pape Cheikh ni nga ko waxee rek dañ leen di présenter benn livre bu ñu bu ñu xaatim ci maam Abdoul Aziz Sy Dabakh Malick mhm. moom nag noonu la ko tuddee bind wax ne mooy source de lumière mi ngi tudd Moussa Mbow nekk benn technicien ci wàllum électronique ak automatisme moom comme ni nga ko waxee rek defe naa ne cofeelam ci maam Abdoul Aziz Sy ak euh, ni mu xamee famille beeg yëpp mhm. ak li maam Abdoul Aziz Sy di représenté ci dimension spirituelle am mhm. ci ci ni mu nekkee unificateur ci ni mu nekkee nitu jàmm ci ni mu nekkee citoyen sénégalais ginnaaw lenn ci li mu wasaaree xam-xam ci Sénégal ak ci àdduna bi yëpp ñëpp xam ko loolu tax nag mu partagé ak ñun ay xam-xam ay anecdote ay histoire yu am solo yoo xamante ne maa ngi ñaax ñëpp ñu jënd livre bi sur Mame Abdoul Aziz Sy ndaxte defe naa ku ko jënd muy ku xam ak ku ku ñàkk xam yëpp defe naa dina am lu bëri loo xamante ne di nga ko si jële léegi defoon naa euh, cérémonie de dédicace bi sa wax léegi ma bëggoon rek ñu seetaan élément bi après ñu dellu si waat ci plateau bi waxtaanee tuuti livre bi. maam Abdoul Aziz Sy baax source de lumière di turu téere bi Moussa Mbow xatim moom mi sukkandiku ci leeru baax ak taxawaayam ci diine l'islam ngir gën a xamal nit ñi moom moo doon kan. bi ñu gën a xiirte ñu bind ci pour mën a bàyyi message loo xam ni dañ koy dénk ndaw yi. waaye nag mbind bi dafa am solo ndax tey jii bu ñu seetee ñi nga xam ni tey yàlla baaxe na leen ñu am ñaar fukki at ak juróom tàmbali nañu liggéey jàng nañu ba def seen étude supérieure def nañu université ba tàmbali liggéey waaye ñooñu ba ñuy juddu ci la maam Abdou génn àddina ba ñu amee juróomi at ci la maam Abdou génn àddina donc dunduñu ak moom. kon nag ñun ñi nga xam ne suñu borom dimbali nañu ba ñu am lu ñu dund ak moom mën nañu jéem a bàyyi loo xam ne ñoom mën nañ ci ubbi di ci yër pour jéem a xam góor googu mooy kan. doonul lu yomb dem Moussa Mbow ngi bind ci ku toll ni maam Abdoul Aziz Sy Dabakh Malick. yomb na yombul waaye wolof dafa wax ni lu ñëpp xam wax ci tuuti doy na ñun nag dañ ci wax tuuti rek ñi ci des nag ah na ku nekk béy sawaar am na tax reportage boo xam ne ni fii def na ko ci moom waxul sax régulateur dafa ni samay copain daw dafa doon dund jamono et ndaw yi nag war nañu jéem a xoolaat boor boobu ndax moom li lim leen daan xiirtal mooy sàmm leen seen njàng parce que xam-xam fu mu teewu dina jafe leneen tegu ci ay xarit yu jege Moussa Mbow ak i ay mbokkam ñoom it di témoigner. li nga xamante ni mën naa ko jàpp bare na lool waaye li gën a fës moo di dafa doon nit koo xamante ni dafa méngale waxam ak jëfam kooku doon lu rëy. citoyen la woon nitu diine nitu lislaam nitu xam-xam. nitu dëgg. maam Abdou ñëpp xam nañ ne ñëpp la fi nekkal jullit yëpp la fi nekkaloon nekk koo xam ne dafa doon boole Moussa foog naa ne dafa nekk koo xam ne dafay roy ci maam Abdou bien que mu xëy na mënul egg fi mu egg waaye bind bi mu bind tey nii jaaxaluñu. du jóg nag ci xel yi ak ci xol yi moom maam Abdoul Aziz si ñàngaleem bokk si kàddu yi mu doon yëkkati di ko wasaare di tooyal xol yi ba fu mu nekk nii. doomi soxna yi fi nekk bañ a falsifié ahadis yi ak ayat alquraniya waaye doomu soxna yi nag nañ seetlu seen bopp nag bañ a fab aaya yàlla yéen xadisu yonent bi di ko firee nu leen neex ngir ragal gouvernement bi. ngir ragal nguur gi. ak ragal ñi lay jox eh, chèque boo. ak ragal léegi tey nga wuute ci ñu xalaat dootu la may bopp mel ne mag ñi liggéeyuñu wala ñi fi nekk duñu borom yi xam-xam nit du tuutal. voilà Dabax Malick euh, de lumière livre boobu léegi ko bind euh, di euh, Moussa Mbow suñu xarit la d'ailleurs donc démb lañ doon amal lancement bi ay satou ginnaaw ni nga ko waxee démb la ñu def cérémonie de dédicace bi euh, waaye man dafa am si lu may taxaw ci livre bi euh, comme nu mu ko waxee rek moo ñi ko wax ñi ñi ñi nekkoon ci cérémonie dédicace bi li ñu wax maanaam dafa nekk nit nekkoon nit koo xamante ne tey lu mu wax rek moom la euh, ay jëfam di méngool mu nekkoon citoyen nu mu koy waxee citoyen avant tout may may taxaw si benn passage si si livre bi Pape Cheikh si tubaab laa koy lire nga ficc ko si si si wolof s'il te plaît voilà donc mooy ci problème mu Casamance bi pour wax rek ni ni nit ki bëggoon dëkkam te te mu nekk lu dëggu si moom mhm. donc dafa waxoon di doon ñaan naan les populations de Casamance sont confrontées à des difficultés et rencontrent de multiples problèmes mu ne au protecteur des croyants unis tout leur cœur afin qu'ils s'aiment et soient particulièrement doux et compatissants envers eux tous ô ma divinité, établis la concorde entre eux et absous totalement les mauvaises actions de tous maanaam ci fu mu tolloon rek mi ngi mi ngi ñaan jàmm. Mm. mi ngi ñaan euh, juboo si dëkk bi euh, ci ci ci ci wolof rek mi ngi doon ñaan population Casamance euh, am jàmm Sénégal nekk benn ngir ngir guerre ak ak ay tolof tolof bañ am si dëkk bi beneen anecdote tamit Pape bu nekk si livre bi ngir wax yaatuwaayu nit ki baaxaayu nit ki dafa am benn ndaw bu bëggoon doon tijji benn commerce bu ñëwoon ci moom ne ko dafa bëgg mu ñaanal ko balaa muy tijji commerce bi ak yëpp dégg naa bu mu ko bu mu ñëwee mu ne ko euh, fan nga kañ fan nga koy tijjee kañ lay doon jour vernissage bi ak yëpp mu wax ko ko. dégg naa mu yëkkati benn benn enveloppe jox ko ñaanal ko ne waaye lépp li ngay def rek teg ko ci yoonu l'islam mhm. maanaam commerce dafa am na mu tëraloo kon nag boo naree tijji commerce euh, defal defee ko si ni ko yàlla bëggee. Mhm. mu yëkkati euh, enveloppe jox ko mais dégg naa ne <coughs> jour vernissage bi jour bi muy tijji commerce bi dafa ñëw dox ak ay tànkam ñëw ba foofu pour rien que pour jox ko ay bénédiction Pape mhm. Cheikh voilà mu ngoog donc euh, livre boobu euh, génn na euh, ñu ci félicité Moussa Mbow mi nga xamante ni moo ko bind bëggoon naa wax ban édition la machin tout ça. mais bon Abyss Abyss édition mais ku ko bëgg tamit naa ne librairie boo dem ko fa fekk. je te passe le livre am na fépp. je pense que dañ ko am fu nekk ba voilà donc livre baa ngi nii euh, et puis Rawane Mbaye moom moo def euh, préface bi. tout à fait euh, tout à fait donc c'est c'est aux voilà édition Abyss donc livre la bu ñu leen di xelal merci beaucoup Aïssatou Paye Fall internet yi tamit ñu ngi réagir depuis sànq Marianne. Pape ko waxee ñu ngi réagir depuis cinq kontaan di rafetlu waxtaan bi. Mhm. Euh, bëri na si nag ñoo xamante ne indi nañ également ay laaj ku ci mel ni aadama Samb moom li muy laaj sëñ bi mooy nee dafa bëgg pour nga wax leen ci njerde nee nañ loolu la ñu bëgg a xam Mouhamed Malick mbay moom euh, nee na dafa bëgg xam lan moo tax Sidi Hadj Malick jóge gaaya euh, ñëw fi nga xamante ne moo di Tiwaawan mhm. euh, Mouhamed Ndiaye li mu bëgg xam moom nee na ki njëkk nekk taalibe Sidi Hadj Malick moom la bëgg xam Euh, faatu Néné Gueye li mu bëgg xam nee na mooy Sidi Hadj Malick ay njàngaleem nee na lan moo tax ñi nga xamante ne moom la defar ay taalibeem euh, mu tegoon leen ci yoon ba wàccuñu yoon boobu. Mhm. Euh, Makhtar Diop moom bind na benn benn benn poème bu gudd di di ci tàgg ki nga xam ni mooy Sidi Hadj Malick keneen itam muy xalif général Gassama nee na mu ngi remercier équipe bu QG yëpp di rafetlu waxtaan bi nee na daal Sidi Hadj Malick kenn amul fayam ndax bàyyi nañu fi ndono loo xamante ne euh, mën nañ ci defar suñu àdduna mais defar ci également suñu àllaaxira mm. euh, loolu la wax itam euh, réaction yi daal bari na Pape Cheikh mm-hmm. di rafetlu waxtaan bi mënuñu mm-hmm. lim ñëpp dañ ci tànn rek comme ni ñu def léegi nii poème bi gudd na bu maxtaar waaw day wax nii rek Seydi Hadj Malick lu nekk euh, wax na ko ci yonent bi sallallahu alayhi di wax Maodo wax na ki ko jur wax na fu mu bokk wax na yëpp ay famille am bu gudd daal muy wone euh, xër bi gaay xër ci Seydi Hadj Malick rek euh, waaw ah, Awamet Ba Dia waaw Sidi Hadj Malick nee na professeur la woon nee na tukkeem yëpp pour jëriñ askan wi la dem na fu nekk mm-hmm. donc bëri na daal ñu bàyyi sëriñ bi rek mu continuer ñu Euh, waxtaanal ci jëmm ju tedd donc internet yooyu noonu ñu ngi leen di euh, gërëm El Hadj Mbaye mi euh, ñu bàyyi la nga sànni ci ay kaddu laataa ñuy waxtaan ak Serigne Ahmed Sarr xam naa dinañ ñëw itam ci projet de société yu fii di Hadj Malick parce que li ñuy mën a jàng ci moom bëri na ci wàllu koom ci wàllu politique c'est-à-dire ñoom dañoo dañoo dañoo problème yëpp xëj na ñun ci jamono ji ñu tollool ñoo xaw a woye di di basé wu feneen ci suñuy yoon mais ñoom réglé nañu problème yëpp xam naa ne ci euh, projet de société yooyu noonu mën nañ cee waxtaan bu ca kanamee tuuti ndax dimension bee toll noonu mm. mais hélas euh, ñu euh, wéyal waxtaan wi rek ci Bakar rek dara maan waaw xam nga léegi dafa tàbbi léegi ci maam Abdou mm-hmm. da baax mu baax moomu lay mm-hmm. nga xam ne réew mi yëpp seen xol ak seen xel du jóg ci mu mukk mm-hmm. waaye loolu nag daf ko jëf nag xam nga Baye Cheikh mën nga wax dara ca doo ko pratique mais moom li mu wax ci dundam yépp loo rekk la dox bëgg jàmm lool ba dayoo jàmm gi kenn xamul fu mu toll bëgg mbokk ba kenn xamoo fi dayoo gi toll mu wàcce it nag boppam xam nga Baye Cheikh bu xew-xew masaana am moom kott dong moo ñeme génn mën a tàbbi ci xew-xew boobu jàmm am amul kenn baton de pèlerinage la yoroon boo xam ne bii bi mu fi jógee ba léegi dañuy dañuy jooy baton boobu li mhm. kon El Hadj Abdou la bu ñu ko tàbbalee ci biir waxtaan wi. Mhm. te livre bii génn mu am suma benn xarit bu ñu naan colonel Samb. Mhm. mu ne Amadou Mbaye Gane mi waxtaan leen El Hadj Abdou. li ñu ko wax ci livre boobu la jëli leen ki nga xam ne moo ko waxtaanee ñu ñu teg ko mu toog ñu waxtaanee ko. ndax El Hadj Abdou day day di dëkk. day tax dëkk stable. kooku nag bu ñu tàbbee ci moom te mu bokk ci njabootu El Hadj Malick nekk ko yàlla baaxal koo xam ne nag dafa boole woon nag. xeebul kenn fexe na daal tubaar tubaarkàlla ba fu mu dëgg rek fu mu dugg di gan di gan du ganu kooku bokku ca kër ga te di ganu kër googu li te ñëpp nag bu ñu ko gisee seen xol day naat amul noonu nit du tuuteel boppam déedéet amul noonu man nag dama ko xamoon ndax dama daan ñëw di yóbbu ñaw ci kër ajaratu dëgg dëgg ajaratu Xadi yaayu soxna Umu Xayri. yaayu soxna Umu Xayri su ma ko masaan fekk ci su ma ko masaan a fekk ci lal bu ndaw bi. Mhm. dama koy fekk mu sóonu yor kursam kaamil bi nekk ci boppam. yaa leen daan ñawal wallaay la sans bàyyi moo leen daan ñawal. Ah. dama ko xamoon nag lool waaye boo ko masaan nuyu dëgg dëgg da ngay yéemu. Mhm. da ngay yaakaar koy gaañ. Mhm. wallaay lazim waaw waaw loxo yonent bi rek moom la yoroon. wallaahi ba pare ñàkk ki ñaan discours ba fa Touba kenn du ko fàtte. kon daal yàlla yàlla nañu ko yàlla fayal waaye daal kii nu waxtaane daal mhm. dëgg dëgg tàbbal ci daal alaaji Abdou addina yëpp kontaan na ci ndax Jamil si mhm. bu Sëriñ Mansour mi ngi naa fan la ñuy jaar wallaahi ba wax ak Baye Cheikh ci émission bi tabar na ñeneen léegi léegi nii sax xam naa ne mhm. bu ñu ibee téléphone bi dafay saturé wallaahi waaye daañu daañu daañu jël ñenn rek euh, ndax ñu ngi may xamal ni euh, Pa Mansour Mbaye mu ngi bëgg a dugg euh, ñu ngi may xamal ni Baye Abdou Aziz mm, Jamil Jamil si bu Sëriñ ñu ngi may xamal ni itam mm. ay kilifa yu bëri ñu ngi bëgg ni mooy Serigne Ahmed saar mm. euh, waaye yooyu yëpp dinañu jéem rek jël ñaar ba ñett jàpp ñeent ci ay nit yoo xamante ni mënut a mm. ñàkk mm. Euh, ñu def seen i contribution tey euh, ci quartier général bi Oustaz Pape Hann loo ci loo ciy teg bég alaaj Pape am mbégte ndax góor gi ñuy waxtaanee mm-hmm. moom Maodo dafa neex a waxtaane mm-hmm. Cheikh Sidil Hadji Malick alaaj Pape góor gu ñuy waxtaane bi yàlla bindee suuf yi suuf yëpp a yam mm-hmm. waaye lay tax suuf yooyu gënante ka dëkkee suuf saa tax moo mhm. Maodo juddewul Tiwaawoon waaye bi mu ñëwee Tiwaawoon moom Cheikh Sil Hadji Malick mhm. naar bu ñuy wax Mouhamed Ibn Abdoulahi Al Alawi dane boo bëggee barke bëgg leer sa tànk bi dëkku Tiwaawoon mhm. xalila yahuja wan zila bi Tiwaawoon mu ni Tiwaawoonu fii xel yum nu lil mutayaamini mu ni bu njëkk arab yi bu ñu daan xëy di liggéey dañuy ñëw ba ci benn garab ay picc fay nekk ñu jël xeer sànni ca garab ga bu picc yi naawee jëm càmmañ ñu gaafal bés ba tey seen journée du neex waaye bu picc yi naawee jëm nday mm. ñu ni tey seen affaire dana baax mm-hmm. Muhammad ibnu Abdullahi al Alawi ne Tiwaawoon daal picc yee fa naawee yëpp nday joor la ñu jëm mm-hmm. fama taara fiiha tairun mutashaimun mm-hmm. walakin haza tuyuril mayamini Seex Sil Hajj Maalik Ahmed gën nañoo xam kanay Maodo waaye gën nañoo xamit nekk gi Seydil Haaji Malick nekkoon ci biir réew mi ndax bi mu fi nekk ay ceddoo fi nekkoon moom Maodo mu juddoo gaaya mu Seydil Haaji jóge fa dem Jolof dil siwaat génn gaaya wër réew mi kuy borom xam-xam bu demee ci yow toog ba mu yàgg da nga yëg ni ki ngay jàngal moo la dàq jàng nga yewi ko mu dem feneen mu jóge yi ñëw ndar jóge fa ñëw njar na ñëw tëngéej ñëw ndakaaru delluwaat Tiwaawoon waa gaaya ak ndarak njar ndeeg tëngéej ak ndakaaru fekk ji waa ji Tiwaawoon mhm. waa jooju nag lañu bëgg a gën a xam Cheikh Sidil Hadj Malick. Euh, jërëjëf sëñ Pape ci laaj yi ñuy laaj. Mm. ki ñuy njëkk a tontu mooy kii laaj kan mooy taawu Alhaji Malick ku njëkk a nekk taalibeem. Alhaji Malick saar moo njëkk a nekk taalibi Cheikh Sidil Hadj Malick te moo magoon Cheikh Sidil Hadj Malick. Alhaji Malick Sarr taawam la taawu Alhaji Malick la denc soxna Fatoumata Si. soxna Faat si moom moo jur mu Muniru saar bi ngeen di dégg ca Buudi ak soxna Xadi saar mi jur sama yaay man. Mm. moo njëkk a nekk taaw Cheikh Seydi Hadji Malick eh, ci taaw taalibeem mais moo ko magoon nag bi Seydi Hadji Malick di di aji màkk moom la dénkoon kër gi hmm. keroog can gi nga xam ne moom lañ joxe soxna Fatou si jël lañ suñu bàyyi Seydi kaamil alxuraan la woon moo jàngal tam ñu mag ndax Seydi Hadji Malick bi mu nekk ca Njaarnde yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla bu nekk dafa am la qad radiyallahu anil mu'minin izi baayi'uunaka tahta shajar mhm. alaaj mbaay dem ba ca ndomba sànjiri mu négocier faak yonent bi sallallahu alayhi pour mu bàyyi a boobu nag ko yonent bi defal doon da bokk ñu jamono ci ci ci mushahada mu defal ko ca ndomba sànjiri keroog bi sëy xaaj maag di yegg ci Taysiir keroog la tombeeg Serigne Babacar Sy du judd moo tax al yusru boo ko déchiffré mu jox la 541 tolloog Babacar Aboubacar Sy nga jël mudd hamataani di 541 tolloog Aboubacar Sy jël allahu samiu mujibu di 541 tolloog Aboubacar Sy jël wa ufayud amri ilallahi tolloog 541 di Aboubacar Sy keroog ca ndomba sàññi parce que yonent bi dafa ne ko danaa la may juróom-ñeent juróom benn ngañ ngañ julli ci yonte bi julli ci man juróom ñeent plus ñett ñett yi na nekk ci xaybu juróom ñeent yi na nekk ci mushahada nga def ci sa juróom benn soxla muy salaatan tuballighuna salaatan tuallimuna salaatan taqdilana salaatan taarifuna salaatan tuballighuna ba mat juróom juróom benn salaat maam xaaj Maalik saar moom ne keroog bi sëñ Babacar Sy juddee keroog gaal gu ñu tuddee Maane Camara la Seydi Xaaji Maalik jël jóge ca ndomba saañ pour dem ci ngénd la hmm. fekk fa ñetti géewal Samba Lobé Fall Samba Thiep ak Malick Mbaye mm. ñuy tagg Seydi xaaju Malick mun leen bu leen tagg ñu ne ko ankay bàyyil mu Seydi Hadj Malick ne bàyyi ñu tagg parce que ku réer ku la feeñal moom mooy moo moo la xamasee bopp keroog xar mooma nag Alaaji Malick Sarr mii moo rey xar mu ñu ngéntee sëñ Babacar si muy taaw sëñ Babacar mm. kon premier taalibe Seydi Hadj Malick mooy maam Alaaji Malick Sarr bu buudi jër jër sëñ Muniir Sarr waaye mu laaj itam lu indi njaar njaarnde lu fa xewoon njaarnde parce que Seydi Hadji Malick bala ma ñëw ci lu ko indi Tiwaawan ba noppi mm-hmm. parce que Alaaji Malick Tiwaawan